asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëfe Serigne Touba jaraw laka maam Cheikh Ibrahima Fall Lamb tey ji nag ñu war a présenter lenn ci suñuy produit bi nga xamante ni bokk na ci li fi nit ñi gën a bëgg bëri na lool ay doomu aadama yu jóge fu ne pour di ko traité si fii muy problème mu rab muy problème mu faru rab rab ak jinneeg seytaane am nañu lu koy faj mu tegu ci diine muy alquran karim ay ñaan yi ñu leen di may ñi nga xamante ni rab daf leen di yàqal lu bare bare yàq seen wërsëg yàq seen liggéey yàq seen i sëy yàq seen i wér yaram kon li nga xamante ni mooy traitement bi faj rab nag am na lu ñu takk am na lu ñu sangoo am na lu ñu diwoo am na lu ñuy naan maanaam traitement bu complet la comme ni ma ko waxee rab dafa yaatu te dafa bare ñu muy sonal ku nekk ak ni mu lay dalee kon am nañu ay pexe yi nga xamante ni mën nañ la seetal xoolal sa yaram yëpp ak sarax yeeg ñaan yeeg yëpp ñu defal la ko incha allahu rabbi kon nag képp ku soxla plus d' information contacté ñu ci numéro bii di 77 169 45 45 bu dee Dakar Géejawaay arrêt Dubalès Kër Serigne Lamine Bara

dina la seetal te lépp lu muy faj ci axuraan la ko teg ci feebar yi may bëgga lim nerf sciatique hémorroïde ak yéen ñi am jafe-jafe ci kàttanu sëy wala ngóor yéen ñi bëgg a am jëkkër te am faru rab fàttewuma leen jigéen ji teewoo am doom wala siti maa ci gaaw yéen ñi am xeetu gémmiñ te bëgg a bàyyi tux ak naan jëlal sama numéro 77 646 41 21 jigéen buy sëy te taw am doom ak ëmb yu yàqu yi ak jafe-jafe yi muy làmboo kyste wala fibrome muy faru yéen ñi bëgg tukki te am jafe-jafe ci wàllu kayit yéen ñi tukki ba pare am ay jafe-jafe avancement ci seen liggéey. ñii nag bu leen fa kenn jiitu muy jigéen yuy sëy te seeni jëkkër loxo bi dafa dëgër. ah mbokk yi ak Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall jaaxle jeex na faj aajo moo ci gaaw ku fa dem. sa aja faju ticket de consultation bi 2000 francs